waaw ba tey ñoo ngi fii si Yoff APEXI ñu fekkaat fii ki nga xamante ne bokk na si ñi nga xamante ne seen i matériel yàqu na moom moom moom móoli ak ngooñ yi sëñ bi ñoo ngi lay jaar. waaw ñu ngi màggal. waaw euh, tey jii nii ñu gis benn fee bu am fii nii affaire bi yéeme trop yow xamoo ba tey lan moo waral affaire bi. non loolu nag des na ma leer quoi dama jékki-jékki rek ñu woo ma ne ma palaas yaa ngi làkk ma ñëw fekk làkk na maag sappoor ñoo fi tase loolu laa si am quoi. yan heure la woon. man quatre heures six lañ ma woo quoi quatre heures lañ ma woo. quatre heures six la woo tey jii nii nan nga gisee affaire yi mu yàqoo affaire yooyu noonu métti na. métti na trop mais ñu ngi koy sante suñu borom rek comme moo ñu mayoon suñu xañee ñu sant yàlla quoi moom moo ñu ko joxoon boo ko jëlee ñu sante ko ko rek métti na trop nag mais. ñun moom loolu rek lañ si am quoi ñu ko koy sante bu baax parce que xamuñu lu tax mu def ko ko tey jii nii lan ngay lancé état bi ak mairie yoof bi bi nga xamante ne yéen yéen a ngi yoof yi lan ngeen di lancé maire bi pour mu ñëw jàppale leen li ngeen xam ni tey moom ngeen ñaax. waaw mais lu mu ñu si mën a jàppale rek te yàlla tax ñu xam ne lii la quoi parce que métti na trop suñu liggéey ñu fii lañ yaakaar suñu dépasse lii lañ investir woon ñu xëy ñëw fekk lakk na loolu lañ ci am noonu lañ ci toll xamuñu lu tax yàlla def ko lu mu ñu si mën a jàppale yàlla tax rek ñu xam ne lii la ñu ci jàppale quoi ñu sante ko xam nga. jàpp si ko. ah macha allah yal na yàlla yëkkatiwaat lépp yàlla defar leen xewal yu bari bari bari bari te xam ne lii ndogalu yàlla yàlla baax na jërëjëf. jërëjëf ñu ngi leen sant di leen gërëm. waaw mbokk auditeur auditrice yi ba tey ñoo ngi fii si Yoff avec si ñu fekk si ki nga xamante ne mooy mécanicien bi ñàkk lu bari bari bari bari gis ngeen mu ngi nii tàkk-tàkk yaa ngi nii euh, grand bi ñu ngi lay gérer. waaw delloo ziar waaw tey jii euh, lii ban heure la amee ak lan moo waral am am la tax mu am ko waaw ah, lii de démb si guddi gi la am quoi à partir de trois heures du matin yooyu noonu si la am quoi mais ñun dañu oo si guddi gi la ñu oo yëgal ñu ko après ba ñëwee fekk nañ tàkk bi sori en plus sapeur yi xam nga dañuy yéex a ñëw avant ñuy ñëw fekk na matériel yëpp yaa ko presque voilà mënuñu si dara quoi lu yàlla la lu waroon a am et puis. ba tey ñoo ngi fii si Yoff APEX Cheikh bi ñu ngi lay. ñu ngi lay delloo si yàlla Euh, tey jii nii dañ la doon laaj euh, lan moo waral tàq-tàq bi ak ban heure la tàkk tàq bi vers quatre heures du matin la mais ñun dañ ñu oo ñu daw ñëw mais mënuñu la wax lii moo ko taal parce que courant bi affaire yi tàkk na ba àgg ci courant muy soor a euh, def benn étincelle jëm kaw ci la ñu gardien bi di yuuxu ñun si lañ ñu ooyee ñu daw ñëw. bi ñëwee fekk mënuñu ci rawale dara par ñu ngi au sapeur moom bi mu ñëwee nag def nañ seen kéem laay kàttan pour fay ko mais ak sant la li fi nekk daal mooy atelier menuisier bi amoon na matériel bu bari boo xamante ne lii moom moo moom lii moomul kon ñun li ñuy def mooy dañuy sàkku ndimbal ci état bi ak autorité yi nga xamante ne ñu ngi ci yoof waaw jiital ci nag suñu maire Abdoulaye Diouf Sarr yaa ngi dégg ak soxnaam soxna Cawlaa yi ñu ci oo Tayro ak borom barke yi ci Yoff yëpp ñu jàppale ñu ngir ñu ñu dimbaliwaat ko ndax njaboot la te ku social la tamit wax suma xarit moo fi nekkoon suma xarit suma doomu ndey man moo laa damay dem géej mais dama yeewu mu oo ma rek wax ma ni ma atelier am dafa tàkk ba jeex ñu am si nag ak yaqim quoi ak gëm yàlla ak dal tamit. xam ni ndogalu suñu borom fu ne lay jógee lii ndogal la parce que loo xamante ne si la sa teraanga ne sa sutura ne si nga tëdd di nelaw ñu woo la ni la sa atelier tàkk na boo ñëwee da ngay delloo si waat sa xel si yàlla te xam ni yàlla moo yor ay mbiram waaw man noonu laa ko jàngate noonu laa ko gisee. Euh, tey jii nii fee bi ban heure la amoon ak tamit ba tey xamagoo ban information parce que man xamaguma ko lan moo waral tàkk-tàkk bi. wa loolu nak moy li umpa ñep ken mënu la wax ni li moko taal ku la ko wax rek waxul li am mom dañ ko o ay 3 heures du matin ni ko sa atelier mu ngi tak bi mu ñëwee manu ci dara lu taxaw di xol jéemu ci ben man-man jéemu musi ben pexé lol lañ si am mu ñëw tamit and ak dal andak ak gëm yalla muy nit ko xamantene yalla yàlla boole na ma wax mais nit la waaw man ku may nekkal rek nit nga man bi ma ñëwee ma xool mu ànd see gëm yàlla ma jàppale ko suñu ànd si loolu dañ koy delloo lépp si loxo yi yàlla yàlla nii la ko bëggee woon nit xoosuw fi nit dammu fi kenn gaañu fi dañ xëy rek mu tàkk ba jeex takk lépp lu fi nekkoon jeex na nañ ñaan yàlla nag ñoom ñu ñëw jàppaleñu buñ mënula def la sensé lépp sax ñu teg leen benn soutien bi bañ mën a delluwaat reprendre seeni liggéey parce que ku si ne xam nga kër ah la muy laaj kontaan nañ torop nag yàlla na yàlla def jàmm te aussi ñoom ñu ngi leen di oo ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar bu baax. kon boog waa Yoff APEX yi ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di xaar bu baax a baax gars yi